léegi su Balla Gaye ak kii Boy Niang noo gisee combat boobu. waaw ah, dafa nekk mbër moo xam ne moom dama ko bëgg sama xol mooy mooy mooy sama mbër waaw sëñ Tuubaa mooy sama mbër dafa nekk mbër moo xam ne peut-être yàlla mayul lépp xam nga ku nekk nga wax naan Balla lii Balla lii Balla lii mais peut-être la mu mënoon dëgg la mënatu ko mais deme ni la Balla dafa nekk mbër moo xam ne mbër mel ni moom ci làmb yombul Balla dafa complet macha allah Balla lépp li mbër war am am na ko Balla dafa nekk mbër moo xam ni maanaam li ko yàlla may mayu ko mbërit mbërit pour man ci arène bi quoi kon dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy boo ñaan ak moom moom du boo ñaan ragal la boo ñaan ñemewul boo ñaan le problème mooy wa làmmiñam moo rëy bala da koy bàyyi wax jërë mu wax saa yi ko baam yow bala moo la ragal la yow moo moo déggoo li ma la wax booy ñaa laa la wax ragal la li muy wax gëmu ko booy ñaa waaw booy nee nañ ñoom jour jour combat ba le premier yéen du ngeen ñëw loolu la jàpp rek 45 minutes bu ko arbitre bi sifflé woon du moom mooy jéggi benn tànkam songu Balla Gaye. moom ah, ku ne mën a daan sa kon Balla ak Boy Niang. mën a daan sa morom. Boy Niang xamul wax mën a daan sa morom. barke Serigne Touba moom ah lu mën a wax ah ku juum daanu ku ne mën na daan sa morom. Boy Niang du yaakaar ne moo gën a féete xale. combat mën na yomb ci moom. mooy nax sa boppam. Balla Gaye tamit Balla Gaye tamit même chose du yaakaar ne combat mën na yomb ci moom day nax boobu ku ne mën a daan sa morom waaw faralu ma ci kenn nag. Boy Niang mooy mbër moo xam ci génération moom rek lañ ciy wax mu aaki moo wax ji lamb avant lamb su le combat ñëwee day rasu ba ko lamb ji jeex Boy Niang du taxaw bëre. digganteem ak ak ak Zoss ko doomu daan de. am na wala amul Boy Niang du taxaw du bëre. te Balla Gaye mooy mbër moo xam ne barki Ahmadou Bamba bu ko jàppee làmb ji jeex non du gisoon dara Balla Gaye mooy mbër moo xam ne su ko jàppee la ji jeex. waaw ah, maa ngi delloo doon. tur bi naka la. Mama Saliou waaw. diggante Balla Gaye ak Boy Niang kan mooy daan. ah man kay Balla Gaye Balla Gaye mooy daan. waaw. foo ko teg Boy Niang na de. Ah, parce que man Balla Gaye moom <laughs> sama mbir la ko waaw waaw xam naa ni moom Balla Gaye mooy daanu moom. mooy daanu waaw waaw. yow Balla Gaye mooy daanu nga wax. mooy mooy mooy daan waaw. waaw loolu Balla Gaye mooy daan nga bëgg wax. waaw. bu dee ci wàllu Balla Gaye kii nii Boy Niang. ba Balla Gaye lim indi contre moo giri su ko indee Boy Niang da daan. waaw da daan. da koy daan waaw combat boobu daal am naa si yaakaar ne daal Boy day daan Balla Gaye. merci beaucoup. ok jaajëf. Balla euh, moom aw ma cim tiit Balla da ko daan def na muy def na mu daan def moromam rek la koy def. mais boobu xale la de. xale ba ci lan ñun danoo dese danoo dese cent pour cent duñ ko may dara. mais Boy Niang moom keroog dafa jàpp Balla Gaye def ko loo xam ne peut-être Balla moo doon def nii ñëw yuux ko dal si kawam. nee na sax si jour ba Balla Gaye ba mosul du bëri si. loolu yooyu stratégie la rek du tous gëmuñu yooyu nan xaar ba bis ba rek bu bis ba ñu won ko liñ ko mane mu jeex tàgg waaw. nee na si ba a luy tee ñëw bu ñu yàlla may wér dañuy teel a ñëw teel a daan teel a ñibbi waaw. Euh, Balla Gaye 2 ak Boy Niang koo jàpp ne mooy daan. waaw foofu moom Balla Gaye mun na am dara ndax booy bi xale la waaye am na doole waaye. ba léegi Balla Gaye gis ma ko ko dàq bëre man faral ma ko quoi waaye gisuma ko ko dàq bëre ci làmb ji fii. mais nee nañ Balla Gaye fu mu toll nii daa te booy bi xaye la. non non non Balla Gaye xanaa gën ko gë dangeen ko gëj gis instant yi liggéey na de te mi ngi dooleem fi mu toll mi ngi dooleem te làmb jaral na ko waaw boo gisee ko signature contrat bi li mu demee rek nga xam ne Balla Gaye am na fu mu ko làmb ji fu mu ko teg ndax bëggul booy daan ko xam la muy am carrière bu yàqu loolu du ko nangu waaw lu ko lu mu daral booy bi rek jaral ko lu ko ëpp man nag moo faral ma Balla Gaye ma soñoon dama naan sa Thiès kii daan ko Boy Niang daan ko waaye combat combat la combat la waaw combat bu métti la nag bu métti waaw. waa Thiès dañoo xam làmb rek la waa Dakar xamuñ dara si làmb ndeke de. mbokk internet yu wasaay làmb ñoo ngi fii si Thiès diggante combat papa euh, kii di Balla Gaye ak Boy Niang. waaw ka nga jàpp mooy daan. waaw boobu Boy daan Balla Gaye jeexal na. koo xam yomb na de. dafa màgget ah. assez gulwaara dafa màgget. gis nga Balla taay moo ngi entraîné si entraîné bu métti ngeen mooy daan. combat bi boo boo ñaar la gën a jaral fu mu toll nii lu mu def ci làmb ji. day wut xaalis rek. businessman la daal. day wut xaalis rek jeexal na tàgg. bu bés bés boobu le premier di nga ne ak lii du Balla Gaye dañ koy humilier dañ koy defal bagaas merci beaucoup. ok jaajëf. Balla Gaye ko jàpp ni mooy daan. waaw oh, boobu moom booy ñaa da koy daan jël bu gaaw sax booy ñaa parce que booy bi ñemee na ko moo ko dàq bëre boole ci. mais gis ngeen Balla Gaye lu mu def si lamb nga ne yow booy ñaa moo ko dàq bëre. waaw mais Balla Gaye loolu temps am la woon rek bi mu ci tollee quoi bi mu ci tollee def na dara ci lamb ji mais instant bii booy ñaa la moom moo fi nekk dina ko duma dina ko daan maa la wax loolu. merci beaucoup xale yàlla ngay coupé topp ba rek ñu dem alors mbokk internet ci Wassare Lamb comme ni ñu ko gisee ah ba léegi ñoo ngi fii ci kees kaay dëkk ñaari gaal wasaay lamb nee naa fépp lay dem nous sommes les enfants nous sommes la matangue sous la pc d'innovation nous sommes les enfants de la télé Khalil bàyyi bàyyi sama sama kii ak Boy Niang ka nga jàpp mooy daal. <laughs> wax ju yàqu la Balla Gaye man Balla Gaye màggat na. non màggatul màggatul. wuy wuy ko fem neen foo ko teg. su ma teg ni moo ko man da ngay xool li ci li ne sa ginnaaw. Eh da ngay da wuy ma da ngay xool li ne sa ginnaaw nga doog a ñëw li ne ci kanam waaw. da ngay andi passé ba pare doog a andi présent. parce que boo ñaan nee na jour ba Pape Boy mais supporter Boy Niang yi nee nañ jour ba Balla Gaye du sax ñëw. du ñëw loolu waxi lan la. ak ak loolu fu euh, xanaa yéen euh, ñaari combat yi mujj da ngeen ko fàtte. booy ñaari combat mi mujjee def yi ñaari defet yi mujjee jël. booy ñaa du bëre. moom lan moog Lac de ñoo yam su ma doon promoteur duma leen tëggal combat. man laa la su ma doon promoteur du ma tëggal Lac de Guiers du ma tëggal booy ñaa combat ndax dañuy yàq laam. waaw moox la loolu. mais booy dafa nekkaat si forme. day soob yëpp day soob. du ñëw du ñëw du ñëw day neexal làmb noonu rek du ñëw mukk mukk day sóob. merci beaucoup. waaw ah, ok ñoo far merci. comment. Balla Gaye Boy acca <laughs> mooy waaw comment ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay baax. diggante Boy Niang ak Balla Gaye 2 ka nga jàpp mooy daal. Boy Niang daan Balla Gaye jël bu set wicc la koy daan bu soobee yàlla. set wicc wicc wicc la koy la koy daan. ah waaw. Fallou yomb na de. boo ko moo gën a fete xale. da koy da koy duma koy daan. léegi mu def làmb yëpp. gis na li mu def ci làmb ndaanaan la mais Boy Niang xale la fa tol si digg dooleem te ñeme na Balla Gaye ragalu ko. waaw jaajëf xam na waa Pikine bu baax. merci xale topp ma. xam nga xam nga Boy Niang xam nga Boy Niang su laa koy déggal. su at bi soufflé fu fu Balla Gaye nekk mu fekk ko fa. Balla Gaye mais kaay leen ni Balla Gaye mooy attaqué Boy Niang. waaw non dama la lool ay wax la rek de ay wax la de Balla Gaye nam daan bëree di daan su ko bëggee borom booy Niang day xaar ndax xam li problème doole ja ñu waxan dëgg rek doole ja nekkatu fa doole Balla Gaye nekkatu fa fit ba moom mun na faa nekk ndax champion la mais xam nga bëri lu koy def bëri du doole de. dama déggal bëri du fit képp a koy def bëri kattan moo koy def te gis nga fa guddi gi Balla Gaye taxoon di déranger si mag ñi naan Yékini boo ko xeexee ma duma la soo bëree ma daan la naan Tyson su ma dem États-Unis nu ma neex laay toll jamono jooju la booy toll fa boo ñaar toll fala ay booy rëg-rëg ay saakes toll xam nga Balla Gaye su doon maay moom su ma koy digal la laa koy digal su ñëwee teg pee góosam boobu lu boo ñaar teg mu laalli su niilee boo ñaa Balla Gaye ndamam la bu làmb ji yàqoon ndam Balla Gaye waaye bu ñëwee bëgg a dëggal boppam bu mun naa jël lu garaaw te booy bi nag xeex bukki lay xeex booy bi <laughs> ay booy ñaa booy ñaa seen dara nga yaakaar ko fekk moom rek ko tey looloo rek ko tey nelaw Balla bu songee booy ñaa ni mu daan songee ñi mun na am defet bu rëy bu doon maay Balla nag bu doon maay Balla xam nga ma koy digal mu teg pay gosam bi di léewtoo ak moom def def combat dem yee indi Ndiaye joxal Diop indi Ndiaye joxal Diop. li mu daan def amatu ko de. jërëjëf Mar. kenn du yow. yow technicien nga technicien nga yow. technicien nga. booy ñaa mii du ko signature contrat bi rawee loolu dong la ci am booy ñaa ak Balla Gaye ba booy ñaa du am dara signature contrat bi la mu am noonu loolu lay am ndax géwal moo miin micro moo tax duñ ko joxee muy wax rek. waa dëgg ki amul technique bu daan Balla Gaye waa dëgg ki yow. Boy Niang Boy Niang yow Boy Niang Boy Niang laa la wax Boy Niang bi rawee am dara ñu xamal bokkuñ sax doole ji mu am doole ji mu am Boy Niang Boy Niang su xoolee Balla Gaye boolee boo ñaaw mu naax xaru ji bu xoolee ba Balla Gaye di ko manipuler nan ko fii ngay jaar waaw yow ay man yow xamoo yow xamoo bi booy ñaa toll nii booy lamb laa lay wax bi booy ñaa toll nii bi booy ñaa toll nii wala bala ngay toll déedéet bala ngay mënu entré déedéet xam nga bala ngay kañ la ba toll xam nga kañ la ba toll bala ngay mënu entré lu booy ñaa entré wu bi mu bëre ci sa booy ñaa jëral mën nga yow booy ñaa bi mu bëre ci sa booy ñaa man la bala nan nga mënu tagu yaram booy ñaa booy ñaa bëre ci sa booy ñaa soo xoolee bala ngay man la bala booy ñaa xam nga booy ñaa moo gën a dagg waaw moo gën a dagg Balla Gaye bu ne fukk yaram booy ñëw bu ne léegi luñ léegi luñ nag barki borom dara ba am jëriñ def moom ndax dëgg na yàlla benn mbër laa am ci àdduna muy Balla Gaye mooy sama champion di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci kaw booy ñaa lii daal laa koy ñaanal ndam bu yokk ba yëg ko noo day yomb xamul tax muy yomb Balla Gaye ñaata ñaata combat la bëree te booy ñaa ñaata nit la fi daan champion yi ñu ko booleel kan la fi daan ay ñun ñëpp Balla Gaye tër na leen Tafatine Balla tër na ko Balla Gaye tër na tër na keneen ak keneen Lac de mënu koo daan kon kay kooku mënul daan Balla Gaye na jéem a ñëw rek yaru yaru joxe jël cër bu mag joxe cëru grand frère ñu jox ko rek wala ñu xool nuñ ko def moom ñaar yooyu am. jox ñu diggante combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang. Boy li ko digal li ma koy digal mooy bu mu naagu Balla Gaye mbër bu mag la te mbër mu mbëru expérience la na tey bu bëri bi yàggee nag mën na am avantage mais bu a profité Balla bu ko bu ko jafe mu jeex waaw na man daal su ma doon Balla su ma doon euh, kii Boy Niang danaa fexe ba du ma jàpp fenn. danaa ko dinaa dinaa fexe ba duwal sama du ci daal dara mais bu bëri bi bu yéexee avantage bi booy ñaaloo bu gaawee nag Balla mën na am dara. dañu bëri leen ni maanaam Balla Gaye day song. Balla dana song mais dina ko jë ko jëm nat nag ci song bu ar bi ne fa dana dox ci koom booy ñaan dana arrière mel ni koo ragal waaye stratégie la waaw.